ak hémorroïde externe bi nga xam ne dafay waral awra bu gàtt dafay waral aussi néew kattan bu fekkee ci wàllu jigéen ñi la dafay indi perturbation des règles mën na la tere am doom am na aussi un traitement hyper efficace bi nga xam ne ba tey hémorroïde bi moo ko causé euh, bi nga xam ne day waral constipation ak euh, biir buy kurkuri lépp loo ci mën am rek incha allah suñu produit bi traité hémorroïdes bi daf koy saafara et 100% bio 100% naturel sans effet لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am assalamu alaykum mbokk yi ginnaw buñu santé yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu jittu kër gi di ko ñaanal di ñaanal jabaram ñu ngi nuyu personnel bi xam bot ginnaw ñu ngi delu di nuyu ñëpp di leen ndokkeel ci wéru koor wu sell bi di ñaan yàlla nango yool bi ñu ngi nuyu sénégal yëpp di leen ñaanal di ñaan yàlla jàgg yàkkal jàmm si réew mi ngi nuyu kilifa dina kilifa aada yi tey dañ ñëw di waxtaan si Ben lekk bu ñu fonk si koor gi ñu dile ko si sunna muy tàndarma muy lay dal ñuy wax njariñam si weeru koor bi tanda naa tàndarma nag euh, bokk mën naa ne c'est l'aliment incontournable si weeru koor mooy ki nga xam ni kenn waru ko mën a ñàkk si biir weeru koor ndax garab buñ nee la mën nañu c'est un aliment complet complet benn ferñeent manqué wu si daanaka buñ nee la garab am na li ñuy wax saccharose muy xeet suukar yi am na ay fibre te boo déggee fibre ñoom ñooy retenir li ñuy wax ndox mi ci intestin bi ñooy tax ndox mi mën a toog ci biir butit bi kon dafay xeex ak seere kon fibre yooyu lu am solo la suñ ne la am na potassium moom tàndarma bii mu waral ni boo ko amee di ko jël lu bari sa tension lu bari lu muy yéeg buñ ne la am na magnésium buñ ne la am na magnésium mooy dafay dëgëral yax kon baax na di ko consommer ci koor gi tàndarma am na fer kon dafay xeex ak anémie mooy manque deret si biir koor gi ndax boo wooree am na luy wàññiku si ci yow kon dafay indi compensation dafay remplacer loolu am na cuivre aussi ba léegi dafa baax ci feebaru napp boo déggee ñu la lekk am na cuivre rek ferñeent bi ñuy wax cuivre mooy boo amee napp di ko jël daf lay faj am na zinc aussi zinc nag bi ñu ko waxee bari na ay njëriñ ndax ci sëy sax bëgg am doom bu ko dee jël daf koy dimbali ba defar ndoxam bu dee ko góor bu ko jënd daf dimbali si conception kon tàndarma baax na kuy wut njaboot. hyper efficace un traitement définitif contre ndoxum siti wala sax ñi nga xam ne seen yaram yi dafay xasan walla sax euh, mu jural leen une mauvaise haleine wala ay ballonnement yoo xam ne. pratiquement ndoxum city bi moo koy causé am nañ ci un traitement définitif 100% bio 100% naturel hyper efficace nañ aussi un traitement hyper efficace contre hémorroïde interne suñ nee la lekk am manganèse ba léegi dafay baax pour wàllu yax ak sidit suñ nee la ay antioxydant kon dafay xeex ak radicaux libres dina tax sa màgget di dinay renforcer système immunitaire na tax ngay gën di mën di xeex ak feebar yi kon loolu lu am solo la tàndarma am na vitamine a am na calcium calcium boo ko déggee mooy mën na remplacer daanaka consommation lu mel ni meew ak yooyu ndax dinay renforcer yax tàndarma am na vitamine a dafay leeral bët am na vitamine b1 kon loolu dafay xeex ak anémie ndax am na ñoo xam dañuy anémie fekk fer lañ manqué ñii anémie fekk vitamine B1 lañ manqué kon loolu dafay xeex contre anémie tàndarma ba léegi dafa am solo ndax dafay lutter contre liy màggetal say siddit kon dafay dëgëral say siddit tax deret ji mën a di dëgëral sa xol booy jël nee nañ la ñaar ba ñett gramme rek maanaam boo ko soxlaa si fibre jël ñeent tàndarma am nga donc 3 ba 4 grammes de fibre loolu dafay représenté 8 pour cent si li nga soxla si fibre si journée bi kon defe naa loolu lu am solo te fibre yi ñooy retenir ndox mi si butit yi ñooy tax doo seere kon loolu mat na naa am boo ko jël dafay lutter contre constipation boo ko dee jël doo seere si koor kon loolu lu mat a xam la dafa baax di jël si koor am na ay caroténoïdes am na ay composés phénoliques kon dafay lutter contre les maladies cardiovasculaires hmm, lu mel ni hypertension ABC yu mel noonu boo dee jël tàndama yàlla mën na si muccal dinay xeex ak aussi yenn xeetu cancer yi ndax composé phénolique yi kon boo dee jël tàndarma prévention la même contre yenn xeetu cancer yi nit ñi ragal kon defe naa ni tàndarma lu am solo la mais yan tàndarma nga war a jël may lañ la nga jël ma bu tooy bi ak bu wow bi nga boole ko mais bu verte bi doo ko boole bu wow bi kon mën nga jël bu verte bi kese jël bu wow bi kese jël bu tooy beek bu wow bi mais doo boole bu verte bi ak bu wow loolu mat na xam donc am na yoo xam ne la koy jaay defaat du ñoo xam ne war a ñoo dafay verte kon yooyu dafa am ni ko la conseil mën nga ko booleeg bu tooy bi mais doo ko booleeg bu woo bi loolu baax na leeral nit ñi xam ko su ñëwee si question yi xam moom la nit ñeen tey ji ku njëkk ki daf ni mal moom dafa am xeetu saan bi ñuy wax teeñaa bëgg si tegtal teeñaa li ñu joxe say garab bari na mais dañ si joxe bu gàtte gaaw mooy limon ak laaj da ngay jël limon nga pajal ko am si genn wàll kaas jël juróomi doomu laaj daggate ko def ko biir tàngal ko ba mu tàng nga segg ko lekk benn beeg suukar xaar 5 minutes après nga naan solution boobu si kàttanu yàlla boo ko defee bu dee teeñaan daf koy dagg ak beneen xeetu saan bu mu fekk daf koy dindi. ñaareelu question bi kii def nii ndax mën nañu consommer ndax bu ñu consommer jinjeer fekk dañ ko wal congeler ko ndax du perte ay propriété congélation yàqul euh, njariñu jinjeer kon mën nga ko wal congeler ko denc ko mais nag du yem ak bi nga xam ne da ko wal utiliser ko léegi dina am lu manqué garab saa yoo ko defaree jël ko à chaud du yem li nga defar denc ko boo ko jël ko à chaud di nga am plus de ferñeent yi nga soxla que bi nga xam ne nga ko congelé garder ko ndax toujours day am lu muy muy perte bien que dina am njëriñ aussi toujours. am nañu aussi une pommade ak huile loo xam ne c'est très efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg euh, augmenter seeni sein ak jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg yokk seeni fes ak seeni hanche am nañ aussi un traitement hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay vergeture maanaam dañoo am ay rew ñu bëgg mu dañ taxaliko ak ñoom am nañ aussi un traitement hyper efficace pour ñi nga xam ne dañoo bëgg perdre seen poids moo xam sa biir moo ngand nga bëgg mu wàññeeku wala sa poids nga bëgg mu wàññeeku am nañ aussi une gamme neexal say hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg teelu xale maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg resserre vaginal wala dañoo am perte blanche wala dañoo am une mauvaise odeur vaginale lépp da koy dindi traité ko delloo la comme bi nga nekkee jànq aussi lem pur cent cent bio cent naturel képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان